Pawlish am na ndam bu baax non Pawlish temps a billaay yéen a ngi xewi. te bu sàggane dinañ fay nag. Adji <laughs> Sarr Adji Sarr da leen daf leen fay <laughs> balaa caag ngeen fexe ba xewaatee. fexe na dama xewaatee ay saar bi boo ko seqee ma fay amul suuf ko ma ay saar bëgg ñëw fay nii moo tax ma ñëw ci ci yow man gëj naa yeewu heure bi si. gën a heure bi gën naa boo jugul ci sa dogay xew xew bi gaaw barke yéen di mais mais mais mais nga ni boo nekkee néew néew bu soxor ngay a ay saar yéeru ko jël taal ko nii affaire bi jaaxal ma ay saar ay saar. waaw. feeñu Macky Sall ba am naam a soo ko am naam dëgg naa ko moom mooy leen feeñu de ak bu baax. waaw kon nag fi waxee don don mostra. bu tiit ah waaye nga fexe ba yéen xeebi de man xeebi